salaamaaleykum mbokki internet bu Guédiawaye Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkale ci bisu màgg bi di bisu tabaski eh, di leen baalu àq di leen baalu di yàlla di ñaan yàlla mooy ñu wér ak kàttan ba ñu ko teewee ati at tey ñu ngi ñëw seet si benn champion boo xam te ne mën naan kenn doot ko présenté ci yàmb eh, champion boo xam te ne naan à l'espace de dix ans la marqué empreinte am daal di nekk roi des arènes am façon succès bu nekk. ci génération tamit mu daal ci njëkk a dégg roi des arènes doon te ne tey day kanam. parce que bu nekkee ci làmb dina ci mettre intensité bataille psychologique mu déstabiliser adversaire am mais aussi bu jugee ci làmb day wane beneen xar kanam mën nañ du sigi xool nit yaakaar naa ne kenn doot ko président su ma ne le fils de Double xel yëpp war a dem ci Balla numéro 2 euh, Balla numéro 2 lañ seet si tey le lion de Guédiawaye mbokk yi fas yéene waxtaan moom nan lay passé fête de tabaski bi yaakaar naa ne kon suma camarade Bécaye topp mbokk internet yi comme ni leen ko waxee woon sànq rek tey champion bi ñu seet si mën naa ni kenn doon ko présenté ci làmb ndax comme j'ai l'habitude de le dire à l'espace de dix ans la marqué empreinte am mais également ci génération moom moo ci njëkk a dégg roi des euh, li ma ci waxoon bëri na donc damay tënk rek daal koy nuyu ñu doog ko tàmbali waxtaan bi champion ñu bàyyi nga nuyoo présenté wu. Thiandoum ñu ngi lay ziar di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu monde entier di nuyu. fans Balla Gaye numéro yi di nuyu njabootu Cheikh na Cheikh Saadu bi njabootu sëñ waa kër sëriñ Tuba Alaaji Malick waa kër sëñ Babacar Si Limaamu Laay Bukunta Njaasaan ñëpp ña seen rawatina fi ma dëkk muy géejawaay encore une fois di nuyu suma am di jàmm yi ci mel ni suma papa maa ngi koy nuyu yàlla di ñaan yàlla yàlla guddal fanam ak suma yaay ak ñi nga xamante ñu ngi am papa ak yaay yàlla na yàlla guddal seen fan te bàyyi leen fi ñu nekk ci kaso bi yàlla na yàlla génnal leen ñu képp ki nga xamante ne rek erreur mo la fa dóor rek yàlla na la fa yàlla génne ci barke sallallahu alayhi wasallam wala safaan rawatina aussi tamit euh, suma papa suma xarit encore Aziz Ndiaye di ñaan yàlla li ñaan màkka yàlla na ko suñu borom sottil ku ci mel ni Ilimane Lam Baara Gueye vraiment ak Andaw njaay ak Pape Mama Fall ak Thierno Gueye ak Simon Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall rawatina suma turandoo di Balla Gaye ak école de lutte Balla Gaye numéro un di gërëm encardement beeg ak staff yëpp ak Baye Ndiaye donc vraiment ak Massata rawatina nag waa géejuwaay gi yëpp nga xamante ne ñoo bëgg bala Gaye 2 sopp ko ak fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna rek maa ngi leen di siyaar bu baax di leen këram rawatina aussi suma xarit suma doomu nday Boucher lii ma sol nii tey moom ma ko jox muy ensemble mu nekk suma xarit di xiloo ngir bala Gaye di xeex ngir bala Gaye donc vraiment maa ngi ñaan a jàmm ak njabootam di ko baalu àq di baalu àq Sénégal yëpp di wax képp ku ma tooñ rek maa ngi lay baalu àq. <laughs> alors champion ñu fekk la tay en famille ngay passer fête bi euh mën nañu gis nañu la nga daal di nekk ci activité yi également euh, gis nañ la ben moment sax ngay fess mané wa mbeur fan la jangeli wa mënu ñu xam nga ñun ay banlieusard lañu te ñu luñ doon euh, yag nañu fess yag nañu dem di dox dugg dox mew yag nañu dem geej yag nañu dem football yag nañu fakh yag nañu samouri yag nañu def lepp li nga xamantene jeune war na ko def muy banlieusard man def naa ko moo tax vraiment mu mun fees waaw. alors aussi tey tabaski ñu gis ne am na ay moment da ko doon passé sa kër papa tey nga dem ba benn moment nga fondé sa famille ñëw nga koy passé ak sa njaboot fondé sa famille bopp loolu ban sentiment nga ci am. waaw alhamdulilah parce que loolu la kenn ku nekk rek bu la juree rek da lay ñaan yàlla nga former famille parce que àdduna moo demee noonu ku nekk rek jaar na ci muy suma waajur ak waajur kenn. képp ku mun doon ci àdduna rek jaar nga ci waaye man maa ngi jullee sama kër papa lu ma fond de famille aussi fond de ma nekk ak suma njaboot nekk ak suma suma soxna mais suma kër papa laa jullee ba pare mu rey xar bi après ma doog a ñëw fii eggali li may def loolu moo tax. tey bu ñu xoolee également gis nañu à travers tamit say proches ñi nga xam te ne ñooy say jege ñaale tey ñu seetlu benn proximité bu am sa diggante ak ñoom ngeen jege yoo trop mais jege yoo tamit couleur daat koy lal ak benn maturité. waaw c'est normal xamal nañ naan lu yàgg dëgg la parce que tey ñëpp képp ki nga xamante ne nga gis ko man ak moom rek dañoo jegewoo dañoo yàgg nekk depuis 2005 ñi ma la fi limal ñëpp depuis cinq ba léegi ñu ngi ànd ñu ngi may yàgg a jàppale te benn baat boobu rek ngeen di dégg ma koy wax. te mosul changé te ñoom laa xam ñoom man lañ xam te donc toujours rek bu ma amee bu ma ñàkkee bu ma yàlla joxee bu ma joxul toujours ñu ngi ak man donc kóllëre moo dox sama diggante ak ñoom ba nga xamante ne seetante da ci am famille am ci lépp am ci kon mënuma lu dul rek sàmm kóllëre boobu waaw. bu ñu xoolee aussi bisu tabaski nekk bis boo xamante ni tey da nga war di calculer par rapport ak ngay passé sa journée. parce que da ngay nekk ci liggéey bi nekk ci yenn activité yi tey d'habitude mbër nan lay passé journée tabaski waaw ni mu koy passé bon comme man mbokk man sama bopp laa xam ni ma koy passé mooy rey xar dagg ko ba normal jox ko ñu defar ko vraiment say am di jàmm say dëkkandoo ak say mag nga dem baalu ak rawatina suma mag bi nga xamante ne maa ngi dëkk moom muy ibrahima saaxo di ko baalu ak bu baax a baax a baax te xam ne cëru mag la ma jox cëru rax la ma jox bokk baaxam téye ma boolewul dara ko wax vraiment ma koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom tamit ci ñoo nekk ci kër gi ensemble ak sumay jarbaat ku ci mel ni fàllu donc voilà ak Abdou Ndaw ñoom lay maire yi ak ñoom Cheikh Parkil vraiment dañuy nekk ci kër gi ñu nekk ci jaamu ay commissaire parce que vie boobu man moom laa xam kaf fo rey amul leneen oui bu ñu bu ñu seetloo aussi euh, ñu daal di xool ne am na ñaari champion yi am teen jot nga laale ak ñoom euh, ku ci mel ni Babou ak Ousmane Diop mais bu weesoo làmb am benn relation bu leen lié relation bu sincère mu doon ànd boo xam te ne ñëpp jàpp nañ ne ànd bu dëggu la parce que souvent da ngeen di demalante di dikkalante mu doon ànd boo xam te ñu bëri sax am na ñu bëri ñoo xam te ne da leen impressionné tey ban genre relation nga siix ak ñoom. waaw jàmm ak salaam rek xam nga àdduna moom boo ci nekkee wul ni ku nekk am na vie ni ku nekk aussi tamit am na am ci am am nay xarit ah, li gën a rafet nag ci àdduna mooy nga bëri nit ba pare après ba mu jeexal moom nga xaritoog moom képp ki nga xamante ne xaritoo na ak yow rek daa fekk nga bàyyi bëre Baboy bàyyi na bëre Ousmane Diop presque bàyyi na bëre donc du ma ne bàyyiwul mais en fait ah bëri naa ak moom lii sama devoir mooy ma xaritoog moom sekk ak moom jàmm. di demalante di dëkkalante parce que loolu mooy àdduna sport dañ ne bu defarul bu boolewul warta tàggali ko te man lépp li nga xamante ne luy boole sport rek moom laay def parce que moom laa xam lépp lu mu am ginnaaw yàlla ak yonent bi sport moom ko may.